Décès par noyade de deux jeunes ambulants à Kaolack disparus dans le bras de mer dimanche. Les corps n'ont été retrouvés que ce lundi. Des nuées d'insectes un peu partout. Les bestioles envahissent l'atmosphère. À Louga, la situation préoccupe. Les habitants réclament d'ailleurs l'intervention du service d'hygiène. Succession au poste de secrétaire général du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye estime que le renouvellement des instances se fera uniquement Pour l'heure, elle tient les rênes et apporte des précisions. des heurts en Guinée à Conakry entre partisans de Cellou Diallo et force de l'ordre. Un mort par balle, des blessés enregistrés. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies appellent au calme. Et puis cette situation inquiétante à Farabougou, à 123 km de Ségou, c'est au Mali. La localité est prise en otage par des groupes armés non identifiés. Ligue européenne des champions 93 africains en lice, le Sénégal en tête. avec 17 joueurs. Coup d'envoi ce mardi avec le choc PSG Manchester United Maria. Merci beaucoup à vous, Adjaratou Seigneur. Tels sont les titres qui seront développés dans la première édition à 6h45 ginnaaw bi fanweeri simili ak benn tegoo ci juróom-benn waxtu salaamaaleykum El Hadj Malick Ndiaye waaleykum salaam si Samaria eh, ci li nga xam ne mën na gën a fës ci xibaar yi ci juróom-ñaari waxtu bu soobee bokk na ci bu ñu ay xale yoo ba tey ci wàllu xibaar yi na ci nag ay gunóor yu bëree bëri fépp ca Louga nag daal di fa bëri lool ba tax na sax situation bi nag jaaxal ñi nga xam ñoo fa dëkkee ñu oote ku leen di mu rawatina waa service d'hygiène ba tey ci wàllu xibaar yi ñu fas yéene te Mbengue Ndiaye mi nga xam ne nag moom moom lañ fa tege tege na diggante ñu ba tey ci lu jëm ci situation fële ca Farabougou ca diggante Bamako lu foofu kat localité boobu ay touristes ñoo ko jël en otage ligue européenne des champions lañ koy jeexale ak tamit tamit jongante war am tey ji waaye bokk na ci 93 africain fukki sénégalais ak juróom-ñaar ñoo ci bokk tey ji la match yi commencé bi ci gën a bokk na ci Paris Saint-Germain ak Manchester United ci Samaria. jërëjëf El Hadj lay jox dig daje ngir yaatal gi. incha allah. L'info les jours et en synchro avec nos stations régionales. Sud Sud Soir. Économie, politique, sport, société, santé. tout petit. Analyse, reportage. Suivez l'actualité juste et vraie au quotidien et à toute heure de la journée. Sud FM, premier sur l'info essentielle. La revue des titres à la une des quotidiens. nous sommes le mardi 20 octobre 2020. Bonjour Adjaratou Anne Mariam Diagne. Bonjour Maria. Revue des titres que l'on démarre comme tous les matins par Sud Quotidien. Succession de Ousmane Tanor Dieng, le PS face au Parti socialiste. Nos confrères de Sud Quotidien nous euh, placardent à leur une les photos de Serigne Mbaye Thiam, qui est le secrétaire général de l'Union régionale PS de Kaolack, ministre de l'eau et de l'assainissement, Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale par intérim du Parti socialiste et présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, et Alioune Ndoye, ministre de la pêche, maire de Dakar Plateau. Et pour euh, l'analyste politique Maurice Soudieck John, si ce les égaux qui sont en avant plutôt que le projet. Le parti va vers des lendemains incertains. la une des échos Nos confrères nous parlent aussi de cette candidature affichée au poste de secrétaire général Serigne Mbaye mais le Parti socialiste s'en dessus dessous. Nos confrères nous parlent de Air Sénégal qui est dans le brouillard après la démission du directeur général adjoint. C'est le directeur général qui est actuellement sur siège éjectable. De cher Omar Anne qui rassure les étudiants le seront.

Condé réagit. Et de quoi nous parle Dakar Times Condé qui veut lui aussi s'accrocher au pouvoir, mais les premières tendances sont favorables à celui d'Alain Diallo. Nos confrères nous parlent de confusion en Guinée avec les germes d'un chaos post Nous terminons par nos confrères qui nous indiquent la police met fin à un mariage entre homosexuels à Mermoz, révélation sur une orgie. li gën fës ci këru yéenekaay jërëjëf ginnaaw bi fanweeri simili ak juróom tegoo ci juróom benn waxtu salaamaaleykum ajaratu Ndeye Mariam Mariam tey ci talaata ji ñaar fukki fan ci weerub octobre 2020 ñu tàmbali ko suñu biir kër Sud Quotidien Sud Quotidien tey ji daal di xëyee ci parti bi di parti socialiste di gis nag ne am nañu nekk ci biir parti gi fu mu nekk ni nag wanewuñu wala boog ña ngay làq ne ñoom bëgg nañu nag jiite parti bi ni mel ñu gis ne ci ñooñu mun nañ ci mel ni Serigne Mbaye Thiam nekk ministre de l'eau et de l'assainissement moom moo jiite union régionale PS bu Kaolack ak ak tamit ki nga xam ne moom mooy Alioune Ndoye nekk ministre euh, lu jublu ci wàllu parti euh, mel ni lu ni mel euh, les échos xëyee. ndaxte ñoom ñu ngi gis ne kii di Serigne Mbaye Thiam dafa tàmbale nag di jaxase parti bi di parti socialiste mu am nag ñu bokk ci biir parti boobu di jukki ci biir collikaay bi di les échos. direct news di wax ci Air Sénégal. di ñu xamal ne ñu ngi ci jafe-jafe yu tar ndaxte directeur général adjoint ba daal dina démissionné te nee nañu suñu maytuwulee dinañu fa jëlee ki nga xam ne nag euh, mooy directeur euh, général bi moom mi ngi ñi xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ay kaddu euh, joriñ gu ñu dénk wàllu jàngale di Cheikh Oumar Anne moom ma ngay dalal xelu étudiants yi di leen wax nag ne képp kuñ ci bëgg a nouveau bachelier yi daal képp kuñ ci bëgg a orienté dinañu ko defee ci ni mu waree enquête xëy xale yi nga xam ne ñoom ñooy dem di mbëkk gaal ñooñu la ñuy tuddee nag immigration clandestine ñu ngay dem di jaar ci gaal yi di yegg ko dalee weerum janvier jàpp septembre junni yu tegal ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti sénégalais jot nañoo dem ba foofu nga xam ne moom mooy ca Espagne. waaye réew mi dem na ba Guinée. moom daal di nañuy xamal ne kii di see Dalin Diallo moom nag léegi daal dinay xamle ne moom mooy njiitu réewum euh, Guinée Conakry wante ñi far ci ginnaaw Alpha Condé dafa mel ni ne ànduñu ci li ni mel. mu mel ni Dakar Times fa la xëyee itam. mu ne daal moom ba léegi nag euh, bàyyeegul nguur gi ma ca jafandu bu baax a baax ndaxte moom it euh, dafa daal di xamle ne gagné na wante nee nañu daal tendance yi moom la gën a fësal moom mooy ne kii moo ci am daal. ñu yër L'As Quotidien. L'As Quotidien su fekkente bi moom moo wéy foofu nga xam ne moom mooy ca Guinée suñu moytuwulee nag pëccëxoo gu métti la fa nar a indi. libération xëy lu doy waar. doy waar kay ndaxte dañu ne wu fa li nga xam ne moom mooy ca Mermoz ab takk moom moo fa amoon ci diggante ñaari góor euh, li ni mel nag waa police ñoom ñoo ko daal di euh, dakkal ñii nga xam ne nag ñoom ñoo doon jéem a def li ni it daal di nañu leen teg loxo te neen sax tollu nañu ci ñaar fukk ak juróom. dama dégg na kenn ku ca dam <laughs> comme ñaar fukk ak juróom benn la eh dañ doon takkante ngoog ba am ay bàjj nag yi ndeyaleeg lépp ci biir déet waay <laughs> Ndeye Mariam loolu maa ngi xaar nga yëral ma ko wax ma ci lu gën a leer. <laughs> <laughs> incha allah ba ci kanam nga jaxatu Ndeye Mariam Ndiaye jërëjëf. Sud FM toujours copié jamais égalé 98.5.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 Et depuis, il n'y a eu encore aucun financement, d'autant plus qu'on nous parle de crédit. Ce pas de l'argent pour soutenir les pêcheurs, mais c'est des prêts qu'il faut rembourser à travers euh, le crédit mutuel du Sénégal. Donc vraiment, les acteurs qui sont les plus impactés ne peuvent pas dire qu'ils sont soutenus par par rapport à la Il alerte la conséquence immédiate de cette crise qui sévit dans la pêche artisanale et que les jeunes pêcheurs sont désormais les candidats à l'émigration. Tous les jeunes pêcheurs comptés sur la pêche pour vivre sont en train de s'embarquer dans des clubs au risque de leur vie pour aller vers les îles Canaries. Les enfants pêcheurs ont décidé d'immigrer. Et cette année, c'est différent des années précédentes. Parce que les années précédentes, c'était surtout des non-pêcheurs qui venaient demander à être transportés par des pêcheurs. De sorte que dans chaque Europe qui quittait le Sénégal pour aller vers l'Europe, sur 100 il y avait 90 non-pêcheurs et 10 pêcheurs membres d'équipage. Mais cette année, cette vous prenez une pirogue qui transporte à son bord 100 personnes, soyez assurés que les 90 sont des pêcheurs qui ont pris la décision donc d'abandonner la pêche et d'abandonner le Sénégal pour aller tenter leur vie ailleurs. C'est pourquoi c'est grave. C'est grave pour la pêche, c'est grave pour l'avenir de notre métier, c'est grave pour la sécurité alimentaire du Sénégal. Parce que la pêche, c'est la première source de devise pour le Sénégal. La pêche sur le plan des apports protéiniques, c'est la pêche qui apporte plus de 80% des protéines animales dont nous avons besoin. Maintenant, si nous n'avons plus de pêche, qu'est-ce que le Sénégal va devenir? C'est là notre Dans le prochain numéro, le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs va aborder des exportations. C'en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 Journal de l'économie présenté par Habsel euh, Imanouane. Parlons maintenant du euh, péril plastique euh, qui constitue encore une fois une préoccupation quand on sait que les déchets plastiques, la, toxic la toxicité, j'y arrive, des déchets plastiques affectent négativement la santé. Vous avez compris, c'est le journal de la santé avec Marie-Rosaline.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 Bonjour à tous. Le péril plastique constitue une préoccupation majeure de santé publique. Le mal affecte les humains, mais aussi le cheptel ainsi que les productions agricoles. À l'occasion d'un forum multi le week-end dernier à Sédhiou, le capitaine Emmanuel Diatta, chef de la division régionale de l'assainissement de Sédhiou et de Kolda, a invité les communautés à une meilleure gestion des déchets plastiques dont la toxicité affecte considérablement la santé publique. On l'écoute est tout intéressant, tous les thèmes que tu as abordés aujourd'hui. Nous avons parlé d'abord euh, globalement de la déforestation et après l'assainissement sur la gestion des déchets, ménager les déchets plastiques et les phénomènes d'inondation. Et l'assainissement solide. particulièrement par rapport à la présentation que j'ai faite, c'est la gestion des déchets ménagers, des déchets plastiques. C'est une grande problématique parce que nous avons vraiment dans des difficultés. Et l'autre frange importante des déchets, c'est les déchets plastiques. Parce que tout à l'heure, vu, les images l'ont montré qu'une bonne partie des déchets que nous avons et constitué de déchets plastiques. Et l'enjeu est énorme. C'est un enjeu sanitaire parce que dans tous les cas, le bouillage des plastiques produit des fumées et les fumées sont toxiques. C'est un enjeu aussi agricole parce que les plastiques, quand ils sont enfouis dans le sol, empêchent l'infiltration de l'eau. C'est aussi un enjeu euh, d'élevage de tout ça parce que tout simplement, les bêtes peuvent non les plastiques et les plastiques peuvent la presse, l'administration, tous ceux qui ont organisé, tous ceux qui ont fait le Plus de femmes ont bénéficié des consultations médicales gratuites pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein durant le week-end à Kolda. Ces consultations médicales ont été organisées dans le cadre du mois de la lutte contre le cancer dénommé Octobre Rose. Il s'agit de la deuxième édition à Kolda et lors de la première édition, plus de femmes de la région avaient été consultées. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.

Bonjour à tous. Deux noyades, deux jeunes ambulants décédés par noyade à Kaolack, disparus dans le bras de mer dimanche. Les corps n'ont été retrouvés que ce lundi. Ces nuées d'insectes un peu partout. Les bestioles envahissent l'atmosphère. À Louga, la situation préoccupe. Les habitants réclament l'intervention du service d'hygiène. Succession au poste de secrétaire général du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye estime que le renouvellement des instances se uniquement le moment venu. Pour et apporte des précisions. Situation préoccupante étendue en Guinée, des heurts à Conakry de Cellou Dalein Diallo et forces de un mort par balle, des blessés enregistrés. La CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies appellent au calme et nous irons au Mali avec euh, cette situation également inquiétante à Farabougou à 123 km de Ségou. La localité est prise en par des groupes armés non identifiés. Adjaratou pour le développement de ces titres. Bonjour à tous. Pape Abdoulaye assure la mise en onde de cette édition qui nous mène directement en Guinée où un mort par balle a été enregistré, euh, des blessés également après des échauffourées à Conakry hier entre partisans de Cellou Dalein et forces de l'ordre. Le candidat de l'UFDG, principale figure de l'opposition, a revendiqué la victoire. Le parti au pouvoir condamne, annonce une plainte. La CENI, proteste. Les précisions avec notre correspondant Voilà, la réaction est tout d'abord venue de la Commission électorale nationale indépendante. Juste après donc cette conférence de Cellou Dalein Diallo qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle, c'est la CENI qui a donc conduit à une conférence euh, extraordinaire donc qui s'est tenue dans ses locaux au centre-ville de Kaloum et le porte-parole de la CENI a, indiqué, a tenu un discours, euh, si vous voulez, musclé contre Cellou Dalein Diallo, déplorant d'abord ce qui s'est passé, son attitude, avant d'affirmer que la tenus et habilités à proclamer des résultats et donc qui seront donc confirmés après par la Cour eh, par la constitutionnelle comme le prévoit la loi. Alors le parti au pouvoir également n'a pas tardé, le parti au pouvoir a organisé aussi une conférence et un des ministres donc qui est du directoire de campagne du parti au pouvoir RPG, à l'occurrence euh, Et Kiriti Bangoura a estimé que c'est Loudalin ce qu'il a fait, c'est un comportement de nature à créer de la subversion, mais aussi à créer des remous sociaux dans le pays. Et le parti ne compte pas s'arrêter là. Le parti menace donc de porter plainte contre le président de l'UFDG pour cette attitude qu'il pense que ce n'est pas de nature à, à, à, conserver, à préserver la quiétude sociale déjà fragile dans le pays. Juste après cette sortie de Selou il y a des échauffourées qui sont signalées un peu partout à Conakry, surtout la commune qui est un fief traditionnel de Selou Ses partisans sont massivement sortis et les forces de l'ordre ont donc fait, sont, sont dans les rues pour tenté de, de donc de, de, de, disperser ces jeunes-là. Et au cours de cette intervention, il y a un jeune qui a reçu une balle. Nous avons eu la confirmation. Les services de sécurité ont confirmé la mort d'un jeune d'une vingtaine d'années qui a reçu une balle à la poitrine. et La CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU appellent au calme et à la retenue avant la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel du 18 octobre en République de Guinée, alors que le processus de compilation des résultats issus des urnes n'est pas encore achevé. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU constatent que des annonces de résultats par des candidats ou leurs représentants sont en cours. Ces annonces sont regrettables. Cet état de fait n'est pas de a élus au cours du vote et du dépouillement en Guinée. Au Mali, l'insécurité bat son plein. Farabougou, la localité située à 123 km de Ségou, dans le centre, quatrième région du Mali, est prise en otage par des groupes armés non identifiés et ce depuis plusieurs jours. Les habitants de la ville, les forces obscurantistes partagent le village, créant un embargo total sur place. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Souri Ibrahim Les morts et les blessés n'ont pas de secours. C'est la troisième semaine assiégé par des individus armés empêchant tout accès à l'endroit, nous affirme un agent de l'Office du Niger qui couvre la zone. Cette isolation du reste de la région de Ségou a créé une certaine disette sur la population qui réclame des denrées de première nécessité afin de pouvoir tenir le coup, apprend-on sur les réseaux sociaux. En réaction à cela, les autorités maliennes à travers les forces armées maliennes ont acheminé ce lundi 19 octobre par les moyens aériens des vivres aux habitants. Depuis quatre jours, des tentatives d'acheminement de vivres aux populations par la route ont été entamées par les femmes, mais sans succès. Mais c'est aujourd'hui qu'ils ont pu les envoyer par avion, nous indique la même source contactée par téléphone. Depuis quelques jours, l'armée tente de reprendre par des assauts, de reprendre le contrôle de la zone, précisément dans la forêt, avec l'arrivée en renfort. Les 15 et le 16 octobre, d'un cortège de blindés, une quarantaine environ, ainsi que des Berdièmes, plus d'une dizaine qui essayent également de pénétrer le village avec des allers-retours aux alentours, poursuit notre interlocuteur. Le pont reliant Dogofri à Farabougou, détruit par les terroristes dans la nuit du samedi à dimanche et des mines placées sur toutes les routes menant à la zone, affirme-t-il. Pour le moment, le village reste toujours sous le joug des assaillants en attendant les tractations en cours par certains médiateurs pour permettre sa libération. Succession à la tête du parti euh, socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye répond à Serigne Mbaye Thiam et apporte des précisions. L'actuel secrétaire euh, général qui assure l'intérim depuis la disparition de Ousmane Tanor Dieng compte terminer le mandat en cours et précise que le renouvellement des instances se fera au moment venu. Le parti a son propre calendrier. Aminata Mbengue Ndiaye que nous écoutons au micro de Birama Ndiaye. On n'en est socialiste actuellement je suis le secrétaire général du parti socialiste Serigne Mbaye il a le droit de s'exprimer de donner son point de vue par rapport à des choses mais vraiment c'est pas dans mon agenda aujourd'hui de parler de ces choses-là le moment venu vous m'entendrez mais même quand il dit même quand a une fin mais mais vous vous avez fait l'école nest pas vous savez ce que c'est un intérim dans nos partis nous avons des règlements intérieurs nous avons des statuts nous avons des bureaux mais un bureau quand le le titulaire n'est plus là il est remplacé immédiatement par le premier qui vient maintenant la date les lieux où se feront les discussions ça on n'en est pas encore là vraiment je ne peux pas rentrer dans des détails. Je n'en suis <laughs> plus à ce niveau. Je ne peux pas être le responsable d'un parti et créer des polémiques autour de questions vraiment, pour moi, qui n'ont pas encore d'importance. Ça aura de l'importance lorsqu'on arrivera à la fin de nos renouvellements et qu'on va, de façon démocratique en tout cas, renouveler les bases de ah, notre parti. On ne sait pas encore. <laughs> Aminata Mbengue Ndiaye s'est prononcée en marge de la clôture de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités euh, territoriales. Un rapport sur la fiscalité des collectivités territoriales a été rédigé à l'issue des travaux de cette deuxième session du Haut Conseil des collectivités euh, territoriales. Célébration de la Journée mondiale de la statistique ce 20 octobre, compte tenu du contexte de la pandémie, il n'y aura pas de festivités, mais l'ANSD tient à partager euh, donc euh, les multiples

Euh, elle a été officiellement célébrée pour la première fois le 20 octobre avec comme thème célébrer les nombreuses avancées de la statistique officielle qui repose sur les valeurs fondamentales de service, d'intégrité et de professionnalisme. Euh, l'ANSD a eu à organiser des panels euh, sur le thème de la journée avec une série de communications. Euh, il a eu à faire donc euh, des déclarations euh, du ministre euh, en charge donc de la statistique. Euh, la Stat aussi, qui est l'association sénégalaise pour la statistique, dont je suis le président par ailleurs, euh, fait donc des, des, des donc des, des, des communiqués. Et la mairie de Dakar aussi a eu par le passé aussi a, distribué des prix dans certains établissements pour mieux promouvoir donc la, la statistique. Il faut dire que la pandémie n'a épargné aucun secteur d'activité dans le pays. et la statistique n'a pas été en reste. La pandémie a amené les producteurs euh, dans la collecte avec la mise en place euh, de questionnaires en ligne et le donc par euh, par Par ailleurs, euh, production statistique a été réajustée hein, avec de, devant permettre au gouvernement de disposer d'éléments d'aide à la décision euh, dans les politiques socio-économiques. C'est ainsi des notes sur l'impact la Covid-19 Euh, sur la croissance économique, sur certains secteurs d'activité comme le tourisme, le euh, euh, la COVID sur les ménages et sur les intentions d'investissement post-COVID-19 des entreprises formelles, ainsi que sur les effets de la COVID-19. Ces enquêtes devraient permettre donc, donc euh, d'outils d'aide à la décision. Donc, euh, disons que les, les, les enquêtes que nous avons menées ont permis un peu à, à, à dans l'élaboration du Vous venez de suivre les précisions de Insa Sadio, chef de la division des statistiques économiques à l'ANSD. Il sera notre invité aujourd'hui, journée mondiale de la statistique. Célébration également ce octobre de la journée mondiale de l'ostéoporose, une maladie qui se traduit par une diminution de la résistance osseuse responsable de nombreuses fractures. L'ostéoporose est un problème de santé euh, publique. Les précisions du docteur Bamba Diaw, euh, rhumatologue dalal jàmm à suivre dans nos prochaines éditions la question sera également évoquée euh, dans l'émission Allô docteur euh, sur Sud FM euh, parlons de cette situation liée aux insectes qui ont envahi l'atmosphère des nuées de bestioles qui polluent l'atmosphère un peu partout à Louga les populations sont obligées de se confiner dans l'obscurité totale les insectes sont attirés par la moindre lueur l'intervention du service d'hygiène vivement souhaitée dans le Niambour Lamine Gueye Samara. Nous avons remarqué qu'il y a trois ou quatre jours que la ville de Louga est submergée par des insectes. Là où il y a la lumière, ils se regroupent bas Ce constat d'un habitant du quartier Thiorna est partagé par toutes les populations du Ndiambour. Fait des nuées d'insectes qui dictent leur loi la nuit. Du crépuscule au petit matin, personne n'ose allumer une lampe, un poste téléviseur ou tout autre appareil carrioles de couleur verte ou noire très puante. Boutiques, magasins et domiciles, tout est au noir. Ceux qui s'aventurent dehors pour des promenades sont couverts de ces petites bêtes dès qu'ils passent sous des lampadaires. Une situation inquiétante qui oblige les populations logotoises à se confiner dans l'obscurité la plus totale depuis quelques jours. Yankoba Ndiaye habite le quartier Tchorna. Les gens sont pratiquement confinés chez eux. Toutes les lumières sont éteintes, de sorte sécurité, y même qui éteignent euh, leur lumière, peur que les insectes ne les envahissent. C'est un phénomène, c'est la première fois que nous avons remarqué ça ici et nous ne savons pas ce qui se passe et combien de temps va durer. En attendant l'explication des experts à la matière sur la raison de la présence de ces meutes d'insectes autour de tout ce qui brille, les populations invitent les services compétents, le service d'hygiène au premier plan, à procéder à une opération de désinsectisation des zones des mesures, notamment service d'hygiène pour euh, trouver une solution parce que il des temps, il y avait des séances de pompage qu'ils euh, pour aider les insectes et ces insectes qui sont nuisibles, on ne sait pas le mal qu'ils peuvent apporter, donc les autorités doivent aussi prendre des mesures par rapport à ça. Ça fait presque phénomène naturel, mais il faut prendre des mesures. Lamine Gueye, Saman Sud FM. Un accident de la circulation hier à hauteur du village de Kër Samba

information vous suivez Matin su FM seen rajo 98.5 fii ci Ndakaar waaye itam ñu lëkkaloog ñeneen yi nga xam ne moo di suñu station régionale juróom-ñaari waxtu bu jotee xam ngeen ne El Hadj Malick day teew ngir xibaar ci yaatal pàcc bu njëkk bi salaamaaleykum El Hadj Malick. waaleykum salaam si Samaria. dañuy jéggi euh, Sénégal dem ba fa nga xam ne moo di Guinée ñu xool naka la ñu xëyee. naka la xëyee foofu tey kon démb nag xët xët xët fitna amoon na fa ñu jàpp ne kat googu ginnaaw diggante mooy séegu toll ci 123 kilomètres touristes yi ñoo fa teg loo xam nañ ci ànd ak di Sory xibaar bokk na ci nag ñaar ñu ñàkk seen bakkan ci lap ca Kaolack seen néew na démb lañ ko gis dinañ gis waxtaan ak yéen yi dañ ci dem ak Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne kat nee waxtu renouvellement jotee dañ ko def maanaam yeesal banqaas yi waaye nag waxtu moom la nee moom lay moom moo ko nekk ba léegi dañ ci indi dañ indi ay leeral ci biir xibaar yi du ñu fàtte xibaaru tàggat yaram Pape Abdoulaye Dieng mu nekk ci wàllu xarala. aywa jërëjëf El Hadj bu ñu taaxee loo mu yaatal. El Hadj Malick Ndiaye jërëjëf Pape Abdoulaye Dièye mi nekk si wàllu xarala gi benn nit mu ñàkk bakkanam am ay ñu ci am ay gaañu gaañ jàppante yi amoon ca Conakry ci diggante ñu tamit takk der yi candidat bu UFDG nag principal figure de moom nee na moom moo gagné élection yi sini nag moom nee na ñoom rek ñoo am sañ-sañ yu yi jot résultat yu moo tax sax union européenne union africaine CEDEAO ak tamit ONU di o ak dal ak tey laataa nag résultat yi moom moo nekk ca Guinée ñu jàpp ne élection yi amoon fukki fan ak juróom-ñett ci weer octobre bi atum 2020 waxtu woo xam ne sax ñu ngi ci dem ci processus électoral bi mun nañ jàpp ne kat euh, li nga xam ne rek moom mooy ay nit jóge nañ ay kàddu wax ne ñoo gagné CEDEAO Union africaine ak ONU nag nee nañ loolu kat da indi jiixi jaaxa ci bopp nit ñi waxtu woo xam ne kat ñi ko war a joxe moo nekk wax ne nag li jotoon am ci élection yi dagg ak a wéyal moom mooy topp li nga xam ne rek moom la yoonu Guinée daal di wax tey ci wàllu xibaar ñëw yéen tamit ca Mali ak lépp loo xam ne jëm na nag ci wàllu ñàkkaarange gi bi nga xam ne nag fës na lu ca Farabougou gox boo xam ne toll na 123 kilomètres ci Ségou nekk ci xolu Mali foofu kat teg seen loxo waaye di fa buur di fa bu mi nañ àndoon nañ ci xam ne rek moom moo nekk kër Sori Ibrahima Mayga ba tey ci wàllu xibaar li ñu fas yéene bokk na ci nag mbirum parti socialiste ak kii di Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne yëkkati na ay kàddu wax ne nag moom euh, tontu Serigne Mbaye Thiam indi tamit ay leeral ki nga xam ne moom moo dox jox parti bi nag mu téegu téegante ko ndigu ne nag mandaam ba léegi jeexagul mu ngi nekk en cours kàddu yooyu nag mu ngi koy yëkkati démb ci clôture deuxième session bu HCCT ñu déglu soxna Aminata Mbengue Ndiaye ci micro kii di Birama Ndiaye. le parti socialiste. sama waay amul benn problème. Serigne Mbaye bi ñu ko doon interviewé ki ko interviewé daf koo posé question moom noonu la ko gisee mu tontu ca la mu ca tontu nekk nag naan fii la jolo euh, di taxaw ak lii vraiment di di di tontonte ñun man loolu yéen ñii yëpp xam ngeen ma man du defante amul lenn lu may tontu Serigne Mbaye point de vue moom la joxe moom noonu la ko xalaate noonu la ko gisee mais parti bi moom ñun ñoo ko bokk duñ ci ànd du ñuy liggéey. sunu priorité tey mooy lii fi Ousmane Tanor bàyyi ñu fexe ba Ousmane Tanor Dieng fa mu tëdd duñu ñu jéppi mais sénégalais yi mu ñu fi bàyyil tamit du ñu jéppi en tout cas lu ñu war a def pour luy avancer parti bi dina ñu ko def te nag wax dëgg yàlla xam naa lan mooy parti bi parce que yàgg naa ci am naa ci expérience occupé naa ci tamit ay fonction de responsabilité yoo nga xam ni ah wax dëgg yàlla position yooyu ku kenn du ci nekk ba pare ñàkk xam parti ñu dem ba ci kanam li ki des lu nekk ci kanam daal rawul bët fi yàlla bàyyi. nee na intérim day am non eh, man dama lay tontu yow gis nga <laughs> dama ne yow bu fekkente ni yow man nga jàng bu baax a baax a baax war ngaa xam ne que poste yi ci àddina bi yëpp tey tey par exemple bu ñu defoon bu ñu bu ñu jëlee un député kenn dem ki ko war a remplacer dafay ñëw di dafay toog ba mandat ba jeex damay toog ba mandat bi nga xam ne moom laa am jeex bis bu jeexee rek ñu defaat beneen. Euh, euh, congrès boo nga xam ne bu boobaa ku mu neex nga yëkkati sa loxo ni damaa bëgg a nekk secrétaire général du parti bi bu ko defee bu la nit ñi wóoloo fal la loolu nag moom bu xibaar jarul a xeex. ah yàlla rek moo ko xam nag fi mu ne. <laughs> ñu wax ci bi ñu nag wàllu statistique war ko amal tey ji ñaar fukki fan ci weeru octobre ci contexte boo xam ne dafa am wàllu mbas mi euh, nag du am benn festivité waaye nag ANSD ñoom dinañ indi nag ay leeral ci yu bëree bëri ci li nga xam ne jot na def fi jàngat ci lu bëri ci wàllu Covid fi ñu toll leeral yi ak kii di Insa euh, Sadio moom nag mooy chef division statistique ak économique ci ANSD ci micro Amadou Moustapha Dieng. Euh, objectif journée bi war a produire ñoo ko produire parce que am na statistique ñu bari dañuy génne statistique mais yooyu duñu duñu ay statistique officielle am na structure yoo xam ne ñoom ñoo war a génne statistique comme Sénégal agent national de la statistique donc statistique yooyu journée bi euh, day wone dafa day wone importance su statistique yooyu pour que nit ñi xam ne jëfandikoo statistique officielle euh, lan mooy important Covid bi daanaka euh, fépp la laal laal na aussi production statistique daanaka ñun dañu mujjee changer doxalin parce que ñu bari lu ñu daan gis mooy ñu def ay enquêtes. dañuy envoyé ay ndaw dem ci kër yi dem ci entreprise yi di poser ay question donc nag euh, respect barrière yi tax na mënatuñu woon def loolu donc lu ñu def actuellement mooy euh, euh, utiliser xarala yu bees yi maanaam internet bi donc dugal questionnaire yi ci internet wax entreprise yi wala ménage yi ñu répondre ci dañuy utiliser aussi téléphone li ñuy naan call center c'est-à-dire jël téléphone woo entreprise yi wala ménage yi poser leen question yi ñu leen di poser ñu répondre ci tax na aussi en études yu bëri yoo xam ne prévoir ñu ko woon wala enquêtes yu bëri yoo xam ne prévoir ñu ko woon euh, ñu def ko pour permettre à l'État mu mu am ay information yu koy permettre mu mën teg ay politique yu baax donc def nañ ay not yu bëri not euh, def nañ ay notes sur croissance économique def na nañu note sur secteur tourisme transport aérien euh, teg nañu teg nañu benn dispositif boo boo xam ne mooy permettre ñu suivre Covid 19 bi ci ménage yi ak ci entreprise secteur informel bi def nañu enquête sur euh, entreprise yi Covid bi jeexee euh, lan mooy seen taxawaay ci ci investissement euh, def nañu enquête aussi sur effet bi lan mooy effet Covid 19 sur sur industrie loolu yëpp comme ni ma ko waxee léegi pour mettre pour permettre gouvernement bi mu teg ay politique yoo xam ne mooy permettre Covid Covid bi bañ a sonal Sénégal ñu waxtu tey jii nag moom ñaar fukki fan ci weeru bi nga xam ne rek moom wopp si di ostéoporose di feebar boo xam ne kat euh, dafay gën fën euh, eh, wax ci Louga bi nga xam ne nag moom fi toll nii daanaka nag ay gunóor ñoo leen sonal foofu ci diwaanu Louga ñu jàpp ne nag euh, askan dañoo jaxlul gunóor yooyu moom mun ni sax njeextal seen wàllu wér-gu-yaram la cànte ci di laman koy sàmman daal dañoo jaaxle dañoo jommi daanaka mat na ñett fan nangatul taal sa lamp gunóor ñëw fees fa dell nga xam ne moo dëkk quartier cox na wax ko ñi dëkk si biir njàmbur yëpp ñoo ko nemmeeku fan yi muy ay naaxu gunóor yi nga xam ne daal ñoom ñooy tere nit ñi dem ak dikk bu timis jotee rek ba si fajar cuuy kenn nanguwul taal sa lamp sa poste télévision wala bépp appareil rek bi nga xam ni dina feeñal lumière leer leer gu gën a tuuti ay gunóor yu bare bare bare yu wert wala boog yu ñuul xeeñ xunn ñoom ñooy song béréb yooyu boutique yi magasin yi kër yi kenn du taal làmp léppay ñuul ñi nga xam ni ñooy jéem a doxantu si mbedd mi ka seen yaram yépp dafay fees ak gunóor yooyu bu ñu jaaree si suufu làmp mbedd yi muy lu jaaxal eh, askan wi tax ñoom ñëpp daanaka si kër yi lu ñuy nekk si lëndëm kuruus Yankuba njaay dëkk coox Coxna. kenn nga tu taal sa làmp boo taalee gunóor yi ñëw fees fa dell ay gunóor yu ndaw la nii ak yu mag fees dell ci dëkk bi am xet aussi doy na waar daal ñu ngi dañu fay seen làmp sécurité tam producteur la ñuy fay pour bañ mu fu tàkk rek gunóor yi fees nañ fa del temps yi daal moom mooy jaaxal waa waa nii jaaxal nañu trop askan wi di xaar ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm si wàllu yu lu ni mel ñu wax leen lan moo waral lu ni mel waaye di wooy itam service compétent yi rawatina service d'hygiène ñu amal opération bi nga xam ne daañu puudar ngir jëlee gunóor yi si béréb yi nga xam ne fa ñu ëppee si biir Louga ñi yore dëkk bi ñu wóor service d'hygiène ak yooyu bi ak yooyu rey yooyu mais yi tamit problème la nañ jàngoro bi parce que lii moom sonal nañu trop mën na andi ay musiba xamuñu yeen façon gunóor lañ ñu koy soo gis doy na waar daal jaaxal nañ ñëpp feeñ xóon ci dëkk bi kay fees fi del wóortu nañu dugg sa jëmin dugg la lamp tàkk daal fees nañ fa del ki leen doon jotali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Saman Sud FM Lamine Gueye sama nag si lang bu am nag ci fële ca Kër Samba nekk ci Bundulu nekk commune Ndiaffate véhicule 307 nag moom moom lañ benn mbëkk benn saret ci ginnaaw am na nag juróom ñu ci gaañ waaye am ci ay gaañu gaañ waaye kenn ñàkk ci bakkanam ñu wax eh, ay ñaari ambulance yoo xam ne am nag ñaar fukki at ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki ñaar fukki ak ñett dañoo nag eh, ñàkk seen bakkan lap ci géeju Kaolack gi loolu nag ci bésu dimanche démb sax lañ gis seen ay néew dañu leen dañ kii di Mouhamadou Camara. diis moom ñaari waxambaane kenn ki kenn ki am ñaar fukki at ak ñett keneen ki am ñaar fukki ak benn ñoom nag ñoom ñoo lapp ca fi nga xam ne moom mooy ci géeju Kaolack bi ca wetu fa ñuy wax BCEAO benn waay bu doon jàll daal moom la xelam dalul dara ba tax na ñu ngi jaloon ay yére ak ay dàll ca boori géej ga xel bi dalul te tamit teeyoon na lool ci mbir moomu ba mu xoolee ba xool amu ca pexe ca la ko yëgal ña ko war a yëg ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon ca boori géej ga ak boori marché au poisson doon faj seeni soxla biñ xoolee ba ci guddi gi jotuñoo gis kenn ci ñaar ñi nga xam ne dañoo làpp ci altine bi nag ñoom ñooy élément commissariat centrale bu kaw Kaolack bañ fa taseeg sapeur pompier yi benn néew bi moom moom moo njëkk a génnal boppam keneen ki sapeur pompier yi ñoom ñoo mujj dugg daal di plongé ba gis ko ñaar ñooñu nag ay marchand ambulant lañ ñu ngi dëkkoon quartier abattoir Ndangaan falañ daloon daal di daan seen doole waaye nag Linguère la ñu dëkk seen néew nag yóbbu nañ leen ci morgue hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack police daal di ubbi ab l'enquête boo xam ne bi mi ngi koy wéyal moom Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ñu wax ci li nga xam ne rek moo jëm ci forum. multi-acteurs yi ci gouvernance des ressources environnementales ca Casamance initiative bu amoon moo nekk Institut Panos de l'Ouest ngir rek gestion participative ci wàllu local yi ak lu wax naan ci wàllu dag garab yi waaye tamit euh, li jëm ci wàllu déchet wàllu mbënn mi dañ ci ànd ak kii di ñaar fan bi ñu amal fii ci diwaanu Sédhiou ñeel mboolem ñoo xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu jaww ji rawat na forêt yi am na weccante xalaat boo xam ne it mu yaatu buñ fi lal mu ñeel wàllu naka la ñu war a fexe ba gën a yéwénal yërolin bu sàll ñeel wàllu jaww jooje it fii ci bët sàllum réew mi mu ngi amee ci ko fi teewal di madame Fall Ndeye Jide addu tey jii on parle de pollution forêt yi ñu ngi disparaître ndànk-ndànk assainissement yi y toujours des problèmes et il faudrait que ñun tamit ñu ñu ne nañu boole acteurs clés fi locaux yi fi nekk médias yi ñu and ak les services déconcentrés yi ak collectivités yi ngir trouver solution. commandant Ismaïla Niang nekk inspecteur régional eaux et bu Sédhiou nee na it lëkkaloo bii la it ab yokkute la mën aar li ñu wër rawatina gàncax gi. fexe ba askan wi dugal seen moomeel seen li leen wër seen àll principalement et gënati am solo bi nga xamee ne lii di taskatu xibaar yi dañ si am solo trop bu jaaree yoon mun a defar lu bëri gor garab bi bëri na fi mais loolu il faut que média yi rajo communautaire yi bay si seen waar bu baax pour gën a yee askan bi donte sax lël bi it nemmeeku nañ ñu bëri ñoo xam ne ñoo yëngu ci fànn boobu la it jaww ji rawatina waaye it kii di Abdoulaye Cissé nekk njiitum SOS environnement ci Kolda soññ na it ñu amal beneen lël mu yaatu yaatu yàlla ñu ciy yëngu ci Sénégal waaye tamit réew ñu dendal bi ci mel ni Gambie ak Guinée Bissau. question bu supranationale la donc fii Gambie Guinée Bissau Sénégal war nañu mën a toog. mooy directeur Eaux ñoo xam ne ñoo yore àll ñëpp toog mu doon grand forum multi acteur transfrontalier forêt bi dafa war a doon une source d' intégration économique. ci ay digle yoo xam ne jot nañ kaa yëkkati soññ ñi yëngu ci wàllu rajo communautaire yi ñi fexe ba jikko yi baax ñi gën ko yaatal waaye tamit kuréel bu koy saytu di comité de pilotage ñu tënk lépp loo xam ne si moom lañ fi jot a nas ci wàllu yor leen mu sell ki ci doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud mais kii tënk rek ci xibaaru tàggat yaram tamit lu jëm ci wàllu Ligue africaine des champions te lu jëm ci wàllu euh, dernière demi-finale bi ci wàllu coupe CAF bi war a am nag ci diggante pyramide bu Égypte ak tamit euh, équipe bi di Orea bu Conakry xam ci koy tàggat moo nekk doomu Sénégal di Lamine Ndiaye di fàttali démb nag RS ñaari bal ci benn ci wàllu coupe wàllu ligue des euh, moom nag Al Ahly moo Al Ahly moo gagné ñaari bal ci dara Zamalek tamit gagné Raja bu Casablanca benn bal ci dara ma match retour dina am nag incha allah rabbi loolu nag ci njeextalu ay bés bi ñu nekk ñu wax ci wàllu ligue européenne des champions ak tamit lu jëm ci nag euh, tey jii nag lay door waaye nag am na 93 doomu Afrique ci bokk Sénégal dama ci jiitu am fukki doom ak juróom-ñaar bokk nañ ci wàllu ligue européenne des champions bi match yi nag ñu tey jii nii am na ci groupe F bi Chelsea Séville Rennes ak Krasnodar ci groupe F Zenit euh, Bruges Lazio ak Dortmund ci groupe euh, bi nga xamoon ne groupe G bi am na Dinamo Kiev Juventus Barcelone ak moom moo sëgg tamit ci groupe H bi Paris CETID Leipzig war a daje Bachikir bi nekk fële ca ma fi doon rëcc ci kàllaama ko ci barab. jërëjëf El Hadj Malick kon dig daje waxtu incha allah incha allah lay doon ci kanam jërëjëfati El Hadj. 7h30 minutes euh, dans nos studios Adjaratou Sagna revient cette fois pour la seconde édition de ce bloc d'information que démarre avec la journée mondiale de la statistique qui est célébrée aujourd'hui Bonjour Maria, effectivement, c'est aujourd'hui 20 octobre que l'on célèbre la journée mondiale de la statistique, euh, mais à cause de la pandémie euh, du coronavirus, pas de festivité. L'ANSD tient cependant à partager les multiples études qu'elle a réalisées pour aider le gouvernement justement dans la prise de décision concernant la lutte contre le coronavirus et la relance économique. Euh, Insa Sadio, chef de la division des statistiques économiques de l'ANSD, sera tout à l'heure euh, invité avec euh, vous euh, Maria. Célébration également aujourd'hui 20 octobre de la journée mondiale de l'ostéoporose, une maladie qui se traduit par une diminution de la résistance osseuse responsable de nombreuses fractures. L'ostéoporose, un problème de santé publique avec une prédominance féminine dont l'incidence augmente avec l'âge. Parmi les causes identifiées, l'âge avancé, la ménopause et l'usage de corticoïdes à forte dose. Les précisions du docteur Bamba Diaw, rhumatologue Diam de Guédiawaye interrogé par Marie-Rosalie Ndiaye. L'ostéoporose est une maladie générale du squelette qui est caractérisée par une résistance osseuse qui est diminuée donc qui prédispose à un risque élevé de fracture. D'accord. Donc par résistance osseuse, on entend la résultante de la densité osseuse et de la qualité de l'os. Donc en gros, c'est une diminution de la résistance de l'os qui est responsable d'un risque de faire des fractures. C'est une pathologie qui est mondiale, c'est un problème de santé publique et on note une euh, prédominance féminine et il y a une incidence qui augmente avec l'âge. Maintenant, il y a deux grandes causes qui sont retrouvées. Il y a des causes qui sont dites primitives et des causes secondaires. Donc, parmi les causes primitives, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'ostéoporose euh, Par exemple, chez la femme euh, l'activité hormonale qui ne voit plus ses règles, elle est exposée à un risque de développer une ostéoporose. Chez le sujet âgé aussi, comme on l'avait dit, il y a une incidence qui augmente avec l'âge. Donc ça, c'était les causes dites primitives. À côté, il y a les causes dites secondaires. En général, c'est des causes qui sont dites iatrogènes, c'est-à-dire qui sont provoquées par l'homme. Par exemple, quelqu'un qui est mis sous traitement corticoïde à là, il y a des risques de développer une ostéoporose dite secondaire. Il y a quelques moyens de prévention qu'on peut, avoir, notamment des moyens hygiéno Pour les causes par exemple, comme on connaît un peu l'origine, il faut un peu une supplémentation hormonale si possible, après la ménopause, pour éviter le risque de survenue de l'ostéoporose primitive. Maintenant, pour ce qui est des causes secondaires, là aussi, quand on met quelqu'un sur un traitement qui peut entraîner une ostéoporose, il faut aussi l'accompagner. Est-ce que l'ostéoporose peut engager le pronostic vital en cas de complications? Il y a une fragilité osseuse. Donc, le risque, c'est de faire des fractures, notamment chez le sujet âgé. Ce qu'on redoute le plus souvent, c'est la fracture et ça entraîne des complications de décubitus, c'est-à-dire que quelqu'un qui est qui a un certain âge, qui a d'autres pathologies cardiovasculaires et autres, qui ne peut pas être opéré, là, il est obligé d'être alité. Il y a un risque après de faire des complications, non seulement infectieuses, mais également des complications d'origine thromboembolique. Donc, c'est les principales complications que nous redoutons. Et ça, ça engager le pronostic vital. Vous venez de suivre les uh, précisions du docteur Bamba Diaw, rhumatologue à l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de l'ostéoporose. Parlons de ces insectes qui terrorisent euh, Maria. Les insectes, les insectes ont envahi euh, donc euh, l'atmosphère un peu partout. La situation préoccupe à Louga où les populations sont obligées de se confiner dans l'obscurité euh, totale pour éviter les bestioles. Des populations qui sollicitent d'ailleurs intervention euh, du euh, service d'hygiène. À Louga, la correspondance de Lamine Gueye Saman. Nous avons remarqué qu'il y a trois ou quatre jours que la ville de Louga est submergée par des insectes. Là il y a la lumière, ils se regroupent là-bas. Ce constat d'un habitant du quartier Tchorna est partagé par toutes les populations du Ndiambour. Fait des nuées d'insectes qui dictent leur loi la nuit. Du crépuscule au petit matin, personne n'ose allumer une lampe, un poste téléviseur ou assaillie par ces bestioles de couleur verte ou noire trépiante. Boutiques, magasins et domiciles, tout est au noir. Ceux qui s'aventurent dehors pour des promenades sont couverts de ces petites bêtes dès qu'ils passent sous des lampadaires. Une situation inquiétante qui oblige les populations lougotoises à se confiner dans l'obscurité la plus totale depuis quelques jours. Yankoba Ndiaye habite le quartier Tchorna. Les gens sont pratiquement confinés chez eux, toutes les lumières sont éteintes, de sorte que problème de sécurité, il y en a même qui éteignent leur lumière, peur que les insectes ne les envahissent. C'est un phénomène, c'est la première fois que nous avons remarqué ça ici et nous ne savons pas ce qui se passe et combien de temps va durer. En attendant l'explication des experts en la matière sur la raison de la présence de ces meutes d'insectes autour de tout les populations invitent les services compétents, le service d'hygiène au premier plan, à procéder à une opération de désinsectisation des zones infestées. les autorités doivent prendre des mesures, notamment les services d'hygiène, pour euh, trouver une solution parce que il fut des temps, il y avait des séances de pompage qu'ils euh, organisaient pour aider les gens. C'est les insectes et ces insectes qui puent, qui sont nuisibles, on ne sait pas le mal qu'ils peuvent apporter, donc les autorités doivent aussi prendre des mesures par rapport à ça. Ça fait presque quatre jours, ça nous étonne. C'est un phénomène naturel, mais il faut prendre des mesures. Lamine Gueye, Saman Louga, Sud Lamine Gueye euh, Samane euh, fin des travaux du forum multi-acteurs sur la gouvernance des ressources environnementales en Casamance c'est à l'initiative de l'Institut Panafrique de l'Ouest pour une gestion participative du potentiel local les coupes abusives de bois l'assainissement les déchets plastiques et les inondations au centre des échanges de fortes recommandations sont ressorties des travaux de commission dans la perspective d'une rencontre sous-régionale et transfrontalière correspondance à Sédiou Moussa forum multi-acteurs de la Casamance sur la gouvernance environnementale est une initiative de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre de son projet intitulé Médias citoyens pour une gouvernance environnementale participative au Sénégal. Si l'on en croit Madame Fall de l'Institut Panos de Dakar, l'objectif est de créer une interactivité multisectorielle dans la gestion des ressources environnementales. des secteurs, des collectivités, services déconcentrés. Ensuite, les médias que vous représentez, parce que c'est un problème aujourd'hui, surtout au niveau de la déforestation et de l'assainissement. Donc, il faudra des actions concrètes, une concertation au niveau local. Le commandant Ismaïla Niang, inspecteur régional des eaux et forêts de Sédhiou, y voit une valeur ajoutée dans une synergie constructive de ce qui nous entoure. Il regroupe beaucoup d'acteurs, parmi lesquels les médias. Ici, dans la région naturelle de la Casamance, nous avons d'énormes difficultés par rapport à la gestion de ces ressources

acteurs des radios communautaires à vulgariser les bonnes pratiques et au comité de pilotage de capitaliser les recommandations issues des travaux de commission centrés sur les mécanismes de gestion des forêts, de l'assainissement, des déchets plastiques et des inondations dans cette partie méridionale du Sénégal. Moussa Dramé Seyou, Sud FM. La mairie de Saint-Louis a abrité hier une rencontre d'information et de sensibilisation sur les réalisations du programme Promoville dans le nord du pays. Plusieurs infrastructures ont été réalisées dans la région. au bénéfice des populations locales, des populations invitées à s'approprier ces infrastructures euh, enfin et de pérenniser les acquis. Les détails avec Yves Tendeng. C'est un bilan plutôt positif que Brahim Fall dresse du projet Promoville au niveau de la zone nord. Il est le chargé du, projet dans la région nord. Je pense que de manière générale, le bilan il est très satisfaisant dans la mesure où, euh, à travers les deux phases, la phase pilote et la phase 1, qui ont été financées tour à tour par l'État du Sénégal pour la phase pilote euh, la BAD et l'État du Sénégal pour la phase 1. 16 km de voiries ont été mises en œuvre, terminées, ouvertes à la circulation dans une durée de deux ans et que côté aménagement connexe, il y a les travaux de réhabilitation du terrain de Wembley qui ont démarré. Je pense que c'est l'un des plus importants aménagements connexes que nous, nous sommes en train de faire au niveau du Sénégal parce qu'on va transformer un terrain en stade avec des gradins, un mur de clôture aux normes avec des avec aussi un terrain multifonctionnel qui va être éclairé et assini. Il s'exprimait à l'occasion d'une réunion d'échange sur les réalisations du projet dans la région de Saint-Louis tenue au niveau de la municipalité. Et l'adjoint au maire en charge de la santé, de la protection sociale et des sports, Lamine Diaye, d'inviter les populations à s'approprier les réalisations du Promoville. Parce que je le disais tout de suite, en ce qui concerne la mairie, nous population de changer de comportement parce que il ne s'agit pas de faire des infractions seulement et laisser à la charge des populations qui, de façon maladroite, utilisent les infrastructures à des fins vraiment qui sont décriées. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir de dire aux populations la vérité, à quoi consiste c'est de prendre en charge les infrastructures mises à leur disposition. Toutefois, un accent particulier fut mis sur la sensibilisation en vue d'un changement de comportement des populations locales pour pérenniser les acquis en termes d'infrastructures. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Parlons politique avec la succession à la tête du parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye répond à Serigne Mbaye Thiam, apporte des précisions. L'actuel secrétaire général compte terminer le mandat qu'il assure depuis la disparition de Ousmane Tanor Dieng. Le renouvellement des instances se fera le moment venu. Euh, le Parti socialiste a son calendrier, explique Aminata Mbengue Ndiaye au micro de Birama Ndiaye. On n'en est pas encore là. Nous, on a un agenda au niveau du Parti socialiste. Actuellement, je suis le secrétaire général du Parti socialiste. Serigne Mbaye, il a le droit de s'exprimer, de donner son point de vue par rapport à des choses, mais vraiment c'est pas dans mon agenda aujourd'hui de parler de ces choses-là. Le moment venu, vous m'entendrez. Même quand il dit que l'intérim Mais, mais vous, vous avez fait l'école, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est un intérim. Dans nos partis, nous avons des règlements intérieurs, nous avons des statuts, nous avons des bureaux. Mais un bureau, quand le, le titulaire n'est plus là, il est remplacé immédiatement par le premier qui vient. Maintenant, la date, les lieux où se feront les discussions, sa on n'en est pas encore là. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans des détails. Je n'en suis <laughs> plus à ce niveau. Je ne peux pas être le responsable d'un parti et créer des polémiques autour de questions vraiment, pour moi, qui n'ont pas encore d'importance. Ça aura de l'importance lorsqu'on arrivera à la fin de nos renouvellements et qu'on va, de façon démocratique en tout cas, renouveler les bases de ah, notre parti. On ne sait <laughs> Aminata Mbengue Ndiaye s'est prononcée en marge de la clôture de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités territoriales. Un rapport sur la fiscalité des collectivités territoriales a été rédigé à l'issue des travaux euh, de cette deuxième euh, session. Puis euh, parlons de la situation en Guinée. Un mort par balle des blessés euh, dans les échauffourées enregistrées hier soir à Conakry entre partisans de Cellou Dalein Diallo et forces de l'ordre. Le candidat de l'UFDG, principale figure de l'opposition, a revendiqué la victoire. Le parti au pouvoir a condamné. La CENI proteste Amadou Diallo. Voilà, la réaction tout d'abord venue la Commission électorale nationale indépendante. Juste après donc cette conférence de Cellou qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle. C'est la CENI qui a donc conduit à une conférence euh, extraordinaire donc qui s'est tenue dans ses locaux au centre-ville de Calom et le porte-parole de la CENI a, indiqué, a tenu un discours, euh, si vous voulez, musclé contre Selou Dalen Diallo, déplorant d'abord ce qui s'est passé, son attitude, avant d'affirmer que seule la CENI est habilitée à proclamer des résultats et donc qui seront donc confirmés après par la Cour, eh, par la constitutionnelle comme le prévoit la loi. Alors, le parti au pouvoir également n'a pas tardé, le parti au pouvoir a organisé aussi une conférence et un des ministres donc qui est, du directoire de campagne du parti au pouvoir RPG, à l'occurrence euh, euh, Kiridi Bangoura a estimé que ce l'oudalensé c'est un comportement de nature à créer de la subversion, mais aussi à créer des remous sociaux dans le pays. Et le parti ne compte pas s'arrêter là. Le parti menace donc de porter plainte contre le président de l'UFDG pour cette attitude qu'il pense que ce n'est pas de nature à, à, à, conserver, préserver la quiétude sociale déjà fragile dans le pays. Juste après cette sortie de Selou il y a des échauffourées qui sont signalées un peu partout à Conakry, surtout la commune qui est un fief traditionnel de Selou Diallo. Ses partisans sont massivement sortis et les forces de l'ordre tenté de, donc de, de, de, disperser ces jeunes-là. Et au cours de cette intervention, il y a un jeune qui a reçu une balle. Nous avons la confirmation. Les services de sécurité ont confirmé la mort d'un jeune d'une vingtaine d'années qui a reçu une balle à la poitrine et qui en est décédé sur le coup. Merci beaucoup Amadou Wouri euh, Diallo, notre correspondant en Guinée, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU appellent au calme et à la retenue avant la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel du 18 octobre, euh, alors que le processus de compilation des résultats issus des urnes n'est pas encore achevé. La CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU constatent que des annonces de résultats par des candidats ou leurs représentants sont en cours. Ces annonces sont regrettables. Cet état de fait n'est pas de nature à préserver le calme qui a prévalu au cours du vote et du dépouillement selon euh, ces institutions qui ont sorti un euh, communiqué. Et c'est la fin de cette édition. juróom-ñetti waxtu ci Sud FM seen rajo joxoon nañ leen ko dig daje sànq El Hadj Malick Ndiaye teewaat na ngir xibaar yi ci yaatal ñaareel bi pàcc salaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam si sama tey jii ñaar fukki fan ci weeru octobre euh, ñu ngi màggal li nga xam ne moo di journée mondiale de la statistique. moo ne mook ci contexte boo xam ne dafa am. mbas mi waaye nag du am benn yëngu-yëngu ak benn xumbuteef ANSD ah, bëgg mooy protéger li nga xam ne rek moom mooy étude bi mu def jàngat bi li nga xam ne def na ko ci wàllu tolluwaay réew mi ci gouvernement bi ak yi ni mel nañ déglu sax ki nga ah, ñaar fukki fan octobre ak journée mondiale de l'ostéoporose di wax soo xam ne kat day indi ay yax yu fënax yoo xam ne dafay gaaw ah, damm ak yi ni mel léeg-léeg ak kii docteur Bamba Diaw nekk rhumatologue ci hôpital dalal jàmm bu Guédiawaye ci micro Marie Rosalie Ndiaye. ostéoporose bu ñu koy wax dafay feebar boo xam ni dafay jàpp li ñuy wax yax yi squelette bi donc yax yi yëpp lay jàpp dafay wàññi seen densité maanaam seen dëgëraay loolu dafay waral mu indi ay risque nit ki war am mën a def ay fracture ay damm-damm yoo xam ni bokkul ak koo xam ni yaxam ndaw bu am ay yax yu dëgër damm-damm yi muy mën a am ak koo xam ne dafa am ostéoporose yax yi ni muy ni muy ni muy faible noonu lu ndaw rek mën na ko indil ay damm-damm loolu moom la ñuy tuddee ostéoporose dafa am ñuy wax cause primitive yoo xam ni loolu moom maanaam ak dund bi ñoo ànd ak ay cause yoo xam ne secondaire loo xam ne loxo nit ki mën na ci nekk maanaam ci cause primitive yi dañ seetlu ni que jigéen ñi lay gën a yàpp maanaam bu ñu demee ba nga xam ni am nañ eh, ñeent fukki at jëm juróom fukki at jëm kaw ñu baax loolu dafay waral ni que dañuy am risque def ostéoporose gis nañ ni que feebar bi nooy gën a jël âge nga gën a am risque def ko yax yi gën a mën commencé def na loolu mooy ostéoporose primitive yi am na yeneen ñu ci gis cause secondaire yi nga xam ne yooyu loxo nit ki def ci mën a dem am na yenn traitement yoo xam ne bu ñu koy faral di jël lu ñuy wax par exemple corticoïdes yi te amul leneen ñu ci boole loolu bu yàggee boo koy jël jëlin bu yàgg amul loo ci boole mën na la indil ay jafe-jafe ci yax yi bu boobaa ba indil la li ñuy wax ostéoporose. est-ce que feebaru ostéoporose buñ ko jëlul en charge mën na indi ay complication ba sax faat ki nga xam ne euh, moom la dal. waa loolu mën na mën na am. loolu mën na am te liñ ciy gën a ngagal surtout mooy li ñuy wax sujet ag ci mag mu am damm-damm ci ci mooco bi maanaam ci pooj bi yaxu pooj bi ci mooco bi foofu amee damm-damm mën na koy indil jafe-jafe mën na dem ba jël bakkanam li koy waral surtout mooy dafay def ay complication yoo xam ni ay infection lay doon day indi ay infection yoo xam ne après mën na dem ba paj mi mën na jafe wala mën na def li ñuy wax complication thromboembolique maanaam deret bi mën na woy dem ba fatt sidit yi nga xam ni ñooy ñëw ci xol beeg yooyu indil ko euh, li ñuy wax ay embolique ay complication thromboembolique loolu li koy gën a indi mooy ni que souvent mag dafay toll âge boo xam ni boo amee damm-damm foofu pour ñu opérer ko day jafe donc duñ ko mënati opérer âge yenn âge yeeg mu fekk am na problème cardiaque am na yenn tension yooyu loolu mooy gën a indi ak booleeg yax yi amatuñu yenn kàttan yi loolu pour mu supporter opéré bi dafay jafe loolu nag moom la ñuy gën a dund ci complication yi ca Louga la ñuy dem ak tamit gunóor yu bëri yi nga xam ne timis bu jotee rek kenn du génn foo dem gunóor yi dafa xuus daal dafay bëri yoo xam ne sax ñoo tax sax askan wi jaaxle bëgg nag service d'hygiène daal lañ ci xeetal dañ caan dikk di Lamine Gueye Samane daal dañoo na ñetti fan kenn nga du taal sa boo taalee gunóor yi ñëw fees dell lu ni mel xam ne moo dëkk quartier cox na wax ko ñi dëkk si biir njàmbur yëpp ñoo ko nemmeeku fan muy ay naaxu gunóor yi nga xam ne daal ñoom ñooy tere nit ñi dem ak dékk bu timis jotee rek ba si fajar cuy bi kenn nanguwul taal sa lampe sa post télévision wala bépp appareil rek bi nga xam ni dina feeñal lumière leer leer gu gën a tuuti ay gunóor yu bare bare bare yu wert wala boog yu ñuul xeeñ xunn ñoom ñooy song béréb yooyu boutique yi magasin yi kër yi kenn du taal làmp lépp ñuul ñi nga xam ni ñooy jéem a doxantu ci mbedd mi ka seen yaram yépp dafay fees ak gunóor yooyu bu ñu jaaree si suufu làmp mbedd yi muy lu jaaxal eh, askan wi tax ñoom ñëpp daanaka ci kër si lëndëm kuruus Yankuba Ndiaye dëkk quartier Coxna. kenn nga tu taal sa lamp boo taalee gunóor yi ñëw fees fa dell ay gunóor yu ndaw la nii ak yu mag fees dell ci dëkk bi am xet aussi doy na waar daal ñu ngi dañuy fay seen lamp sécurité tam producteur yëpp la ñuy fay pour bañ mu fu tàkk rek gunóor yi fees nañ fa dell temps yi daal moom mooy jaaxal waa waa Louga nii jaaxal nañu trop. askan wi di xaar ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm si wàllu yu lu ni mel ñu wax leen lan moo waral lu ni mel waaye di wooy itam service compétent yi rawatina service d'hygiène ñu amal opération bi nga xam ne daañu poudre ngir jëlee gunóor yi si béréb yi nga xam ne fa la ñu ëppee si biir Louga. ñi yore dëkk bi ñu wóor service d'hygiène ak yooyu ñu pompe parce que ay temps danañ di pompe bi ak yooyu a xool solution ñoom xool euh, nu ñuy saafara jàngoro bi parce que lii moom sonal nañu trop mën na ay musiba xamuñu yeen façon gunóor lañ ñu ngi koy soo gis doy na waar daal jaaxal nañ ñëpp xëy xonu ci dëkk bi kay fees fi dal ultur nañu dugg sa jëmin dugg la lamp tàkk daal fees nañ fa dal ki leen Mamy Gueye Samara ñu wax ci njeex gi nga xam ne nag forum euh, multi acteurs sur la gouvernance des ressources environnementales en Casamance waa PANOS waxtaan yi ci lépp loo xam jëm na ci wàllu garab yi ñu tamit assainissement déchets yi am na nag ay xam ne yoo xam ne bu ñu so a soppeeku ne cant ki eh, ñaar fan bi ñu amal fii ci diwaanu Sédhiou ñeel mboolem ñoo xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu jaww ji rawat na forêt yi it am na weccante xalaat boo xam ne it mu yaatu buñ fi lal mu ñeel wàllu naka la ñu war a fexe ba gën a yéwénal yërolin bu sàll ñeel wàllu jaww jooje it fii ci bët sàllum réew mi mu ngi amee ci kilifte kër gi di institut PANOS Afrique de l'Ouest ki ko fi teewal di madame Fall Ndeye Djidé addu ci fànn boobu la. environnement nag dafa bëri pàcc. Euh, tey jii on parle de polition forêt yi ñu ngi disparaître ndànk-ndànk assainissement yi y a toujours des problèmes et il faudrait que ñun tamit ñu ñu ne nañu boole acteurs clés fi locaux yi fi nekk médias yi ñu ànd ak service services déconcentrés yi ak collectivité ngir trouver solution. commandant Ismaïla Niang nekk inspecteur régional eaux et forêt bu Sédhiou nee na it lëkkaloo bii it ab yokkute la mën a aar li ñu wër rawatina gàncax gi. askan wi dugal seen loxo si nu ñuy gérer seen dëkkuwaay seen moomeel seen li leen wër seen àll principalement. et gënati am solo bi nga xamee ne lii di taskatu xibaar yi dañ si am solo trop bu jaaree yoon mun a defar lu bëri ngor garab bi bëri na fi. mais euh, loolu il faut que média yi rajo communautaire yi bay si seen waar bu baax pour gën a yee askan bi donte sax lël bi it nemmeeku nañ ñu bëri ñoo xam ne ñoo yëngu ci fànn boobu la it jaww ji waaye it kii di Abdoulaye Cissé njiitum SOS environnement ci Kolda soññ na it ñu amal beneen lël mu yaatu yaatu ñeel ñi ci yëngu ci Sénégal waaye tamit réew ñu dendal bi ci mel ni Gambie ak Guinée Bissau. question bu supranationale la donc fii Gambie Guinée Bissau Sénégal war nañu mën a toog. mooy directeur Eaux ñoo xam ne ñoo yore àll gi ñëpp toog mu doon grand forum multi-acteurs transfrontalier forêt bi dafa war a doon une source d'intégration économique. ci ay digle yoo xam ne jot nañ kaa yëkkati soññ ñi yëngu ci wàllu rajo communautaire yi ñu fexe ba jikko yi baax ñu gën ko yaatal waaye tamit kuréel bu koy saytu di comité de pilotage ñu tënk lépp loo xam ne si moom lañ fi jot a nas ci wàllu yor leen mu sell ki ci doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud te Ndar la ñu dem ak tam mairie bi nga xam ne am daje boo xam ne na ci wàllu rencontre d'information sensibilisation ci askan wi jëm nag ci nga xam ne kat la Promovilles di def ci dox boobu noonu euh, ci Ndar ñu jàpp ne yu bëri nag jëmm nañ ko ci wàllu infrastructure ak yi ni mel nañ ci ànd ak kii di Yves Tendeng ab bilan bu mucc ayib la kii di Ibrahima Fall mi nga xamee ni mooy chargé de projet Promovilles fii ci bët gannaar daal di def ci lu soxal boobule projet ak liñ ci jot a def fii ci Ndar. ñëpp mën nañ d'accord que ne c'est un c'est bi nga xam ne c'est parce que dañu demoon euh, dañu joxoon ay ay axes de route yoo xam ne c'était problématique da doon am problème inondation da doon am euh, problème mu accès donc jot nañ fa def ay tali ba nga xam ne léegi nit ñi mun nañ fa dugg di génn mu régler waale problème inondation bi ci axe de route yooyu donc euh, deuxième aspect bi aussi mooy que ne aménagement connexes yi nga xam ne def nañ ko fii notamment stade Wembley bi tax na nit ñi dinañ mën a am benn stade bi nga xam ne fii lay nekk au niveau de saint o aux mu doon yëkkati yile kàddu ci lël bi nga xam ne ni ñoo ngi ko doon amal ca mairie bu Ndar ngir weccoo xalaat ci lu jëm ci mbirum réalisation bi les projets fii ci Ndar. kii di adjoint au maire di Lamine jaay mi nga xam ne nii moom la ñu dënk wàllum wér yaram protection sociale ak mbirum tàggat-yaram daal di ci sukkandiku ngir ñaax askan wi ñu jël bi projet def ko seen moomeel. nañu ko jël xam ni ñoom lañu ko defal du maire bi du conseil bi du keneen dañ ko def pour population parce que ñun ci population bi la bokk waaye di defar ay tali bu ëllëgee ngeen gis ñu daaji tali boobu dindi benn pavé def fa tànt wala jël ay ndox comme ni ko waxee ay eaux ni boo ko sottee ci diggante yi day dem. yàq la te yàq boobu bu amee ba pare kenn du waxati kenn du ñuy ñoom ñi koy def duñ leen indiqué euh, indexé dañuy tëb ni maire bi defu fi dara waa Promoville liggéey bi ñu fi liggéey baaxul nangam nangam et cetera loolu nag mooy mooy changement de comportement il faut nit ñi xoolaat. muy projet bu nga xamee ni am na pàcc bu yaa bi ñu daal di jagleel wàllum yeete gi jëmale ci askan wi ngir ñu soppi seeni doxalin ci lu jëm ci mbirum lépp li nga xam ne ni réalisé nañ ko ci diwaan gi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 ku ko interviewé daf koo posé question moom noonu la ko gisee mu tontu ca la mu ca tontu nekk nag naan fii la euh, golo gi taxaw ak lii vraiment di di di tontonte ñun man loolu yéen ñii yëpp xam ngeen ma man du defante yooyu. amul lenn lu may tontu Serigne bay point de vue moom la joxe moom noonu la ko xalaate noonu la ko gisee mais parti bi moom ñun ñoo ko bokk duñ ci ànd du ñuy liggéey sunu priorité tey mooy lii fi Ousmane Tanor Dieng bàyyi ñu fexe ba. Ousmane Tanor Dieng fa mu tëdd du ñu jéppi mais sénégalais yi mu ñu fi bàyyil tamit du ñu jéppi en tout cas lu ñu war a def pour luy avancer parti bi ñu ko def te nag wax dëgg yàlla xam naa lan mooy parti bi parce que yàgg naa ci am naa ci expérience occupé naa ci tamit ay fonctions de responsabilité yoo nga xam ni ah wax dëgg yàlla position yooyu kenn du ci nekk ba pare ñàkk xam parti bi ñu dem ba ci kanam li ki des lu nekk ci kanam daal rawul bët. te yàlla bàyyi. Eh, de man dama lay tontu yow gis nga <laughs> dama ne yow bu fekkente ni yow man nga jàng bu baax a baax a baax war ngaa xam ne que poste ci àdduna bi yëpp tey tey par exemple bu ñu defoon bu ñu bu ñu jëlee un député kenn dem ki ko war a remplacer dafay ñëw di dafay toog ba mandat ba jeex damay toog ba mandat bi nga xam ne moom laa am jeex bis bu jeexee rek ñu defaat beneen. Euh, euh, congrès boo nga xam ne bu boobaa ku mu neex nga yëkkati sa loxo ni damaa bëgg a nekk secrétaire général du parti bi bu ko defee bu la nit ñi wóoloo fal la loolu nag moom wax dëgg yàlla jarul a xeer. ah yàlla moo xam nag fi mu ne. ñu dem ci Guinée ak tamit kenn nit ku ñàkk bakkanam ñu faat ko ak ballu fetal ngi tëri mu ñàkk bakkanam ay jàppante am ca Conakry ci diggante ñi ànd ak Souleymane Diallo tamit takk der yi. ñu jàpp ne nag candidat UFDG euh, mi nga xam ne nag moo jiit opposition wax ne ne moo gagné élection yi waaye nag seeni bi moom nee na loolu nag jotagul ndax résultat yi génnagul CEDEAO ak nag ak mbootaay oote ak dal ak tey laataa ñu génn résultat yi dem te sax seeg seeni bi génnagu ko moo tax sax ñu bëgg li amoon ci vote bi dal googu ñu wéer ko nag ba léegi ku ci nekk rek ànd ak dal ak tey ci ñuy xëccoo yëfi foofu ci Guinée Bissau Maria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 asalaamaaleykum mbokk déglukat yi li ñuy waxtaanee tey mooy mbirum péril plastique daf di loo xam ne euh, mën na gàllankoor lool suñu wér yaram euh, mën na laal nit ñi gàncax gi waaye tamit jur gi ba tax nag ñuy laaj ñëpp ci askan wi ñu daal di ci bàyyi xel euh, gannaaw ab ndaje boo xam ne am na Sédhiou capitaine Emmanuel Diatta jiite division régionale assainissement bu Sédhiou ak Kolda ci micro Moussa Dramé. li boo xam ne presque mun na wax quatre la premier point ci affaire déforestation la côté gestion de déchets troisième point ci inondation ak lan moo tax inondation du am mais te gis nañu dañu kontaan trop parce que bu ñu xam ne déchets yi dañu bëri muy Ziguinchor muy Sédhiou muy Kolda chiffre dañu ko wane buñ ci taaxalee moom dañuy sonn te ci déchets yi nu ñu ko gisee fii ci projection yi surtout au niveau des déchets ménagers am nañu déchets yu bëri yoo xam ne plastique la te plastique nag baaxul plastique baaxul ci environnement parce que tout simplement plastique bu yàggee day sonal nit parce que plastique bu ñu ko lakkee day indi saxaar saxaar foosu baaxul bu ñu ko nooyee plastique tamit day sonal gàncax yi bu ñu demee naan ko wala ñuy dem agriculture parce que da di sonal donc ce qui veut dire plastique lu mu def tamit ci àdduna bi mooy de grande perte économique loolu moo tax dañ ci war a taxaw ñëpp wax nañu gis nañu comprendre nañu loolu moo tax ñuy remercier Institut Panos Afrique parce que ñu fi dégg tey dañu fi gis je pense ku nekk mën nga ci téye ñaar loxo ñu remercier la presse tamit remercier yëpp ñoo xam ne ñoo organisé atelier yi ñoo xam ne ils ont quitté de pour ñu participer ci atelier bi. lu ëpp ñaari junni jigéen la ñu jagleel ay consultation médicale gratuite ca diwaanu Kolda ba ñu amal fa dépistage cancer du col de l'utérus ak cancer wen consultation médical yooyu nag ñu ngi ko tëgg ci jamono joo xam ne ñu ngi xeex feebaru cancer ci bu ñu duppee octobre rose mu di ñaareelu édition bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci diwaanu Kolda.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 doon ceeg Marie Rosalie Ndiaye foofee la ñuy jaaxee jox leen képp ko Sud ni ma koy defee rek saa su ne teg ko ci loxo Ibou Ngone mu seddaleel ma ngi nuyu képp koo xam ne auditeur euh, Sud FM nga di nuyu maître Baxo bu baax a baax di leen nuyu yéen ñi sax di wettali ko Sud FM seen rajo 9h incha allah ginnaaw xibaar yi ci tënk ki am na moo di Nicolas dina fi teew ngir euh, ñëw ci li nga xam ne rek moo di seen émission ndekki li rédaction bi di ma ko waxee léegi dinañ ñëwaat 9h ngir tënk leen xibaar yi Pape Abdoulaye Dieye moo nekkoon ci wàllu xarale gi Maria Robes micro. Merci de nous avoir reçus. Rendez-vous demain, Inch'Allah, dans un nouveau numéro de Sud Matin.